yees bu ñu koy xayma bu ñu sukkandikoo rek ci enquête yéen i kaay moom la mu bëgg rek moom mooy ñu na ci nag jamono ji yi nga xam ne daal ñoom ñoo ko sekk ñu daal di ànd li nga xam ne moom mooy njàngaleek Serigne Touba jàppale nag ni projet la boo xam ne daal nguur ak Sénégal ànd na ci Touba moom ngàddu na nag bi lekk combat bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango waxtaanee xew-xewu ko politique suñu jantub réew lañ ci àndal Le Soleil mi nga xam ne nag dellusiwaat na ci mbiru ko processus électoral bi li wutali woteek présidentielle bu ñu koy xayma nag yëf ya yokk na ndaxte juróom fukk la rek ci téeméer boo jël li nga xamante ne ni ay fiche de parrainage la jot ko fa jël présidentielle bi la nag bu ñu koy xayma ñoom téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn la ñu woon waaye daal jamono ji jàpp leen ne yokk nañ ba ci téeméer ak juróom ñeent fukk ci li nga xamante nag moom moo ñeel coowal Ousmane Sonko la muy moom mooy nag ginnaaw ba ñu parrainage jamono ji moom Ousmane Sonko wutali na loole uh, kuy uh, Cour waaye coow li ci doy waar moom mooy Le Soleil nee na am na ci nag ab foo Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ni daal jamono ji soobu na ca yëf yi lu ni mel jaaxal loola uh, pàccub ancien maire de Dakar mi nga xamante ni daal jamono ji ñoom samp nañu seen ab l'enquête waaye la Soleil nee na ngir nag bokk ci lekk woote DG nee na foo ñu daal di samp rek koppar yu toll ci fanweer ci suñuy koppar million nga waxtaane Le Témoin yi mi nga xam ne naka ne na ci woteeg présidentielle yi lee Pastef daanaka xamul fu mu war a teg tànkam jamono ji daal xalaat gi bëri na ak njuut njaaj gëca biir jàppale nag ni ah, seen ab candidat daanaka mu ngi ci loxoy yoon moom Ousmane Sonko jamono ji daal ñu jàpp ne moom moomee du bokk ci lekka woteeg présidentielle ba tax na nag jamono ji coow li bëri na lool seen ak biir jamono ji sax la ñuy xool moom mooy ana kan moom mooy wutu Ousmane Sonko bu fekkente ni ñoom ñooñee daañu samp seenu ko plan P ah, nañu koy waxtaanee Walf Quotidien ay ah, yéenikaay moom ci nee na fàng nag tey ji ay dam bëj Déthié Fall jàpp Serigne Moustapha si ba ci na Sonko ca biir Yewwi Askan Wi mu mel ni daal ku nekk ràcc jëmale sa boor nga nekk rek di def ci jamono a ji ñu toll wutali Sud Quotidien yéenikaay moom xetam mu njëkk nee na nag coppite yu mujj yu kott rek la ñu nekkee nag diggante administration ak classe politique wutali rek yi lekk parrainage jëm ci élection yi lé lu ni mel ndar képp nañ ko nag négée ni démb ñaar fan ci weeru octobre ci ab atelier de partage nga xam ne daal doxoon na seen naka diggante bi ah, ñu duppee woon ko rek loolee di innovation apportée au code électoral maanaam nag coppite yi nga indi ci wi rek code électoral loolee amoon nag ci kilifteefu direction générale des ah, élections mandataires nag jamono ji teg nañ ca kaw tabal ba daal li nga xam moom moo jëm ci mbiru ah, doublon ya parrainage des na tamit di ko waxtaane ci biiru critique ay yéenekaay ak ndëgg sarax yi nga xam ne daal ñoom ñoo nekk ca mbir paral parrain ya bu ñu koy xayma nag Amadou ko samp moom yi xamante ni daal nga naam diisaa yu ko njiitum réew Macky Sall ma nga ca kawam waaye daal li leer ba leer moom moo ci coowal parrainage bi le bëri na ci coow lu ci laxasu le quotidien le quotidien moom ci coowal Ousmane Sonko la sëggatee yi ci xëtam mu njëkk ginnaaw ba ñu ko écarté loolee am naka ci kanamu ko DG jàppale nag Ousmane Sonko justice boobee mu doon naan wóolu ko foofee daal la mujjee wëlbatiku daal di ko wutali Ousmane Sonko ca cour suprême maître Bamba Cissé teg na nag référé ba ci kanamu ko dogal la bu ni mel la tàggat yaram la tribune sport nañu naka Ligue de champions ñu nga ca ñaareelu ko bëccëg bi tey ji Manchester United fang ci xëtu yéen ko bi jàppale nekk ne ginnaaw ba mu ndërmeeloo ci kanam Bayern Munich yéen kaay bi nee na United moom ma ci kanamu Galatasaray te ji daal la fas yéene taxaw ngir nag dëppandi kàtt gi ci lu jëm rek ci ëllëgam ci jëmale ci li nga xamante ne nag moom moo jëm ci Paris Saint-Germain jàppaleen nag ne Kylian Mbappé mi nga jàpp leen ni dara leerul seen ak diggante ak ñu kasala United laata ñu ko euh, wutali mbokk yi li ni mel nag moom moo fi euh, gërta ruusee ci li nga xam daal moom mooy lu tukkee ci tuggeelekaay yi ñu leen di ñaanal jàmm dellu di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.